شو لونك؟ Si, ang bajiling ang gagawa niya. Bajiling na ako pa rin. May asko mo tayo work yung? Ah. Ay, ay. Ano? Sa ilo, bugot siya mga kiyo. Ay, ay, ay. Dito, medyo magod ang karo mo. Asko mo tayo work yung. Skolo? Sama catutang. Basta catut karo. Ay, li forma, li forma, li forma. Ay, lihat ako bagla yun. ci loo nekk fekk mi ngi nelaw ah fils eh fils waaw te te te te te boy boy boy boy boy boy boy boy sonal nga ma boy yow yow yow yow looy nelaw boy li nga yàq sax xamoo ko laal waaw bay tugal tugal tugal tugal demal demal demal eh yow lan moo. waaye demal laa ko waaye loo bëgg léegi waaye demal waaye demal demal. kii yàqal na ma man dama doon génn nii. mais neexoon naa waaye man nag sama gént contraire lay ñëw de. yàlla baax đây phải Rồi, ra rồi, ra rồi. đi. Đó. Đó Mày Mày lúc không? Yêu lúc linh hiệu mày đem. bébé yaa may taxawoo nii mais pourtant premier avant goût bi neexoon na de. booy gént gi la laa lay wax kay. yow eh man damaa booy yow yàlla ngeen taw de. yàlla leen calleer dàq. yàlla leen rama. waaye laaj ma. booy Fatima. yàlla nañ leen ramas yàlla nañ sama àq yow grand yow daal li nga dagga abu daal li ko si jàmbur yàlla bu fi